ci lislaam la mm-hmm. tàmbalee ko ci daarul arqam mm-hmm. loolu daara la woon mm-hmm. kon yonente bi sallallahu alayhi wa dafaa dajale saxaaba ya ngir di leen yar di leen jàngal ci diine bu ñu ñëwee ci suñu réew mi itam daara nekk lu fi yàgg-yàgg ci gox boo mën a dem nag ca Fuuta ak ca Bawol ak ca Saalum fu man di doon te ca jamono de ña nga xam ne ñoo yoroon daara ya ñooña de ñoo doonoon kilifa ya te itam du ñu dañ di nekk kilifa mukk nag moo xam jox nañ leen cër ba moo xam ñu leen ko mhm. boo demee ci Saalum sax ñoom bañ nañ ko ba sëñ sëñ daara la ñuy wax mhm. dañuy teqatle parce que ci biir Sénégal dafa bëri euh, mhm. lu ñuy wooyee sëriñ yoo xam ne ba ca ñay def xeeti njabar ak yépp sëriñ lañ leen di wax waaye terewut ñoom dañ ko daan teqale sëñ daara la ñuy wax pour bañ a jaxase daara fii ci Sénégal nag dafa am ñeenti forme daara am na daara joo xam ne moom la ñuy wax internat nga xam ne xale bi dafay nekk féete fa guddi ak bëccëg di fa fanaan di fa añee di fa reeree di fa ndékkee féete ca daara ji waajuru xale yi am lu ñu yëkkati di ko jox seen daara ba am daara joo xam ne xale bi day ñëw jàng wàcc ñibbi seen kër añi ji bu ngoonee mu ñëwaat wàcc jëm seen kër reeri ci am daara joo xam ne xale yi dañuy dem di yalwaani ji di yalwaani añ di yalwaani reer di yalwaani ndékki mhm. amit daara joo xam ne bëreegu fi waaye am na ay jirim lañu fa dajale nga xam ne kat seeni waajur dañoo génn àddina mhm. waaye am ñoo xam ne dañoo jël engagement wu dajale jirim yooyu ci benn barab di leen jàngal mhm. ay bon volonté jógee fële ñëw di leen dimbali leen dimbali ñeenti formu daara yooyu yépp mi ngi ci biir réew mi daara nag buñ ko dee waxtaanee mooy nañ mooy nañ jàpp ne nañuy wax ñu lislaam la ñuy waxtaane rek mhm. parce que mooy fondement wu lislaam parce que mhm. alquranul karim mooy fondement wu xam-xam mhm. nit mënta bëri xam-xam te fekk xamut alquran parce que mooy ndayu téere yi umul kitaab umul kitaab mooy alquran ndayu téere yi te téere boobu mu ne su koo jàng di ko cof dama jël la jàng di ko cof ngir am ci dara waaye même bu doon da nga koo jàng jox ko yitte jam war a am jëpp ba mokkal ko boo koy bàyyi mu di la bàyyi. macha allah alquranul karim. dëgg la de. boo koy bàyyi mu di la bàyyi. wallaahi kon mu ne su koo jàng di ko cof. dañ koo war a jàng jël ko au sérieux mhm. comme ni nga xamee ne bu école tijjee mbedd yëpp fees dell. nga gis gone yi ñu solal leen ay. bootal leen ay saak. solal leen yëre yu bees. jox leen bouteille yi def ci goûter. di leen yittewoo toppatoo leen noonu lañu war a joxee cër xale yi nga xam ne ñu ngi ci daara yi di jàng alxuraan. Mhm. malheureusement. Mhm. Euh, daara bëri na problème lool. Mhm. bu ñu duggee ci problème bi li ci jiitu mooy kii yóbbu daaraam. Mhm. kii yóbbu doomam daara. Mhm. ñii yóbbu seen doom daara sax laa bëgg a wax. seeni jubluwaay dañoo wute. lool sax am na koo xam ne fi mu ne mi ngi yóbbu doomam daara ngir doyewul daara daara lu dul ñu téel ko xale bi nga xam ne xale bi dafa tëg mu mel ni daara dafa nekk. maison d'arrêt et de corruption te daara du loolu ñu bari dañuy ñëw indil leen seen doom naan la téyel ma ko bu mu génn tëj nga xam ne dañ koy tëj mhm. te xamuñu ne dafa am kër goo xam ne dañ ko def ngir muy rectifier di tëj nit ñi di leen téye muy bi nekk ci rëbës mhm. daara du loolu daara du rëbës daara du rëbës mhm. am na ñoo xam ne noonu lañ ko jàppee am ñoo xam ne dañuy yóbbu seen doom ngir règlement de conte maanaam ñaari nit daal ñu ngi doon sëy am na divorce bu am seen diggante maanaam tàqalikoo nañu kenn ci ñoom moo xam ku góor la moo xam ku jigéen ki jël doom ji di ko rawale di ko làq ci daara léeg leen mu jur problème yu bari mhm. am na mhm. xam ne ku jigéen ki day ñëw indi ko ci daara ji ngir bañ ku góor ki gis ko wala ku góor ki indi ko ci daara ji ngir gan bañ ku jigéen ko gis ko wala sax mu koy xeexee ku góor wala mu koy xeexee ku jigéen ñu ciy xeexante ci xale bi mhm. loolu nag lu bon a bon ci xale yi la psychologiquement dafay suyee ci ci ñoom te am na ñoo xam ne bu ñuy indi seen doom daara Euh, lu mel noonu moo koy waral léeg-léeg euh, xale bi ñu koy indi ci daara ji euh, papaam bëgg mu dem daara yaayam ya maam ji du bëgg wala famille bi ñenn bañ ci mu am ay tiraillement yooyu yëpp dafay am te li ñu ko yóbbee léeg-léeg mooy jubluwaay bi mooy jubluwaay yi mooy xaw a wute mm-hmm. léeg-léeg itam nga gis koo xam ne day indi doomam ci daara c'est parce que dafa bëgg nag doom ji mokkal alquran bëgg ñu yar ko yaru diine mhm. bu boobaa nag ci la jàngalekat bi am responsabilité bu diis nag mhm. waaye léeg-léeg itam nga gis koo xam ne dafay yóbbu doomam daara waaye dafa naan daal genre kiis la koy def maanaam mhm. bu fa jàngee daal ba am fa ñaari at ñetti at mu daal di koy génne dugal ko ci école ba maanaam na alxuraan njëkk ci bopp na ci bopp bi nga xam ne loolu mooy objectif am kenn ku ne nag lala tax di yóbbu sa doon daara lu toll noonu rek nga cay am innamal amalu bi linniyaat waaye li war a am dëgg dëgg nag ci jullit mooy waroon a jël doomam yóbbu ko ca daara ja ngir mu mokkal alquran ba àggal mhm. bu paree lu muy def yi soog def te ñu bari dañu xamut ne euh, mën ngaa mokkal alquran te du la teree jàng njàngum àddina dëgg la ndax alquran dafa nekk loo xam ne mhm. ku ñu ko xas def ci sa dënn dara dara tëyatu la ci njàng dara jaaxalatu la lépp dafa yomb ci yow te euh, boo xasee mokkal alxuraan ci at yu néew ñetti at ñeenti at boo fa jógee boo duggee école am na ay classes yoo xam ne doo ko def. billaay da nga koy tëb daanaka yow cycle primaire bi ñetti at dong wala neexee jàng ko am na sax ñoo xam ne ñaari at lañ koy jàng. Mhm. parce que lañ dafay fay jàngal daanaka ay civilisation yi ñeneen la ak yoo xam ne yu kenn yu yomb yomb lay doon ci yow. Mhm. nit ñi nag bu ñu xamee loolu da ngay gis ñoo xam ne dañuy yóbbu seen doom daara ngir mu mokkal nga xam ne loolu moo nekk seen objectif mhm. bu mokkalee ba pare ñu am chance nag yóbbu ko mu jàng njàngam àddina wala mu continuer njàngum xam-xamam kon li war a doon objectif principal ci jullit ci bu yóbbu doomam daara mooy mu fexe mokkal alquranul karim def ko ci bopp bi ndax alquran lu ñuy denc ci ay dënn la bal huwa ayatum mhm. bayinatum fi suduri alladina utul ilm maanaam ku nekk ci sa dënn tàmbali nga xam-xam yow am nga xam-xam mm-hmm. ndax képp koo xam ne yaa ngi continuer sa njàngum xam-xam te fekk alxuraan mokkaloo ko da gis benn faiblesse buy nekk ci yow mm-hmm. waaye heure boo xamee nit ki mokkal na alxuraan mm-hmm. lépp lu mu déggati rek bopp bi dana ko capté delloo ko ci benn aaya te itam day yomb ci moom eh, mu jàngaat mépp njàng mu dul moom kon boo xamee ne xam nañu ne daara yi Ah, ñi yóbbu seen doom gisiin yi dafa wuute objectif yi wuute lañu am oh, am na ñoo xam ne dañuy ñëw ci daara waaye itam seen déggin ci daara léeg-léeg dafay wuute lool ak déggin wa war a am ndax am na koo xam ne buy indi doomam daara dafay ñëw ci sëriñ daara bi jox fekk mosoon naa jaar ci daara mu jox doom ji niveau bu kawe jàpp ne kii kat jàngoon na ba egg yaasin wala jàngoon na ba wàcc téere suuf bi takkat kat léeg-léeg boo ko testee mm. da ngay xam ne kii dañ koy tàmbali waatal parce que li mu jàngoon lépp xamu ci dara xamatu ci dara amaana toog na lu yàgg jàngut amaana ci leneen a ko téye woon amaana jàng ma amaana amaana léegi nag mm. foofu léeg-léeg dafay indi ay tiraillement ci diggante parents d'élèves yi ak itam mooy jàngalekat yi mm. parce que boo joxee sa sa doom nit ne ko yow moom egg na ci am njàng fenn fi egg na ci sóoratu yaasin wala egg na ci sóoratul kahfi mhm. ci misaal nga toog at ñëw fekk ko mu toll ci sóoratu rahman wala sóoratu yaasin nga nga yaakaaroon mhm. nga ne sax sama doom ji daa jàngul ca daara bi mhm. foofu moom laay insister ne képp koo xam ne sëriñ daara nga bu ñu lay indil xale bul sukkandiku rek ci ne egg na sóoratu nangam wala egg na sóoratu testé ko ci kanam parent bi ba xam ne kii dafa yeyoo tàmbaliwaat wala day continuer bu fekkee dafa war a tàmbaliwaat nga xamal parent bi ne ko kii kat dafay tàmbaliwaat mm. nga xam ne bu boobaa du toog at ñaari at mu ñëw yaakaar ne kii war naa mokkal te fekk kii tollagut sax ci wàcc téere suuf dëgg la euh, am na ñoo xam ne bu ñuy indi seen doom dañuy jàpp ne xale bi moom ginnaaw internat la nekk rek warul weesu ñeenti at juróomi at te mokkalut mm-hmm. forcément mm-hmm. fekk du loolu xale bi mën naa ñëw ci daara ji am fa ñetti at mokkal mën na faa am ñeenti at mokkal mën na faa am juróomi at mokkal waaye mën na faa am fukki at it du mm-hmm. waaw ndax daara joo dem moom français beeg ju alxuraan ji jum ci man a doon. Euh, boo xoolee primaire bi bu ñu bu dee ci français bi boo xoolee primaire bi ñaata xale ñoo fay nekk bu ñu ñemee ci beneen cycle bi mu wàññeeku bu ñu demee université muy wàññeeku. ñi dugg primaire ñëpp danañ dem université. du ñu dem. am ñoo xam dañuy gunge donc. dañuy gunge rek daara itam noonu la demee léegi nag parent d'élève bi nag bu xamut loolu moom li muy jàpp rek mooy doomam jàngaluñ ko te daal di tàmbali sikk daara ji wala mu yaakaar ne avancé wu te amaana doo moom xel mi moo neexut mhm. yooyu yëpp ay problème la yoo xam ne nit ñi dañ cee war di waxtaan mhm. ñu am ci ak déggoo mhm. euh, am na ñoo xam ne itam jàpp nañ ne bu ñu demee internat loolu yi may wax nii léeg-léeg euh, ay ay ñàkk déggoo la yu am diggante parents d'élèves yi ak jàngalekat yi euh, bu ñu demee ci internat bu wakaas jotee dañuy dagg fay gi bu xale bi feebaree dañuy dëgg arrêté fay gi maanaam dootuñu continuer liñ doon joxe te xamuñu ne daara heure boo ci duggee ci internat yi da nekk ci contrat. Mhm. li fekk xale bi bàyyiwut. comme école bi dëgg mel comme école mhm. wala location. waaw li fekk contrat bi dëggut bàyyeegul parce que mhm. boo nekkoon ci location tey nga am sa soxla dem tukki ji un mois deux mois te delloo woo contrat bi. da ngay continuer di fay. xale bi itam bu fekkee mi ngi ci daara ji. li feek euh, génnagut ci daara ji mm-hmm. kooku li mu waroon a joxe da koo war di joxe mm-hmm. ndax sarge yi nga xam ne daara ji amoon na ko moom di ko continuer daggut du chance mm-hmm. moo xam ci vacance la moo xam dafa feebar moo xam lu mu mën di doon yooyu léeg ay ñàkk déggoo lay doon yoo xam ne day am ci euh, woy juru xale yi ak xale yi problème mu daara buñ ko dee waxtaanee luñ mën a wax lu baree baree bari la waaye liñ ko yóbbee lépp fondamentalement mooy ñàkk jox gëdd daara maanaam ñàkk ko jox worma jëm war a am gis nga daara buñ ko joxoon worma bañ koo yemalee kuy ñëw ci boutique bi di jënd ñu jaay la parce am na ñoo xam ne noonu lañ ko jàppee dañoo jàpp ni daara moom day mel ni yow ñëw ci boutique rek mhm. di jënd ñu di la jaay rek mhm. fekk daara weesu la loolu ndax daara ak alquran ci boppam dafa bokk ci li ñuy wax symbole islamique mhm. sha'airallah te alquran nee na wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwa qulub beneen barab mu ne wa man yuazim sha'ira hurumatillahi fa huwa khayrun kon sha'ir yooyu nga xam ne mooy symbole yi représenté l'islam ci kaw suuf moo xam jàkka la moo xam daara la moo xam alquran la lu mu ci mën a doon dañ koo war a jox worma ju mat sëkk dëgg la ni ngay gisee ñuy dem ci barab fonk ko kenn ku nekk barab ba nga fonk boo fay dugg am na ci yenn barab yoo xam ne sax léeg-léeg da ngay sumisee daal ngàbb ko mhm. cër bu raw boobu lañ waroon a jël jox ko daare alquran yi mhm. cër bu raw boobu lañ war a jël jox ko daara alxuraan yi parce que lan lañ fay jàng jànguñu fa waxi ma sàmba jànguñu fa waxi ma demba waxi suñu borom subhanahu wa taala xam nga nit ñi li ñuy jàng ci li alxuraan mooy lan waxi xamuñu ne kenn ku nekk say wax sa jëmm lay représenté mhm. bokkut ak yenn livre yi diwa ko bind ak nangam nangam te waxi suñu borom subhanahu wa taala la nga xam ne uh-huh. amut njuumte amut sikk beneen livre bu dul moom bu ko borom bindee toog ñaari at ñetti at ka ko bindoon ci boppam da ko am na ca lu ko naqari lu mu war a changé mhm. alquran nag ñaata at a ngi nii muy am te amut lenn luñ ci war a changé bu virgule wallahi loolu moo lay xam ne waxi suñ borom subhanahu wa taala la ñaareel ba mooy défi bi nga xam ne lancé woon na ko ci wax ne qul la in ijtamaatil insu wal jinnu ala an yatu bi kaana baaduhum li baadin xayra billahi billahi nit ak ginneem penkook sowwu ñépp buñ dajaloo woon bëgg a indi lu mel ni alquran benn aaya sax mënuñu ko indi mhm. ku ko jéem da nga lot mhm. benn aaya te xoolal nit ni mu xereñee xoolal nit ni ñu déggee arab xoolal ñi ko jéem rek ñi ko jéem ak ñi ko jéemoon mhm. xoolal ka doon jéem di toppandoo suratu eh, eh, aadiyaat wal aadiyaati dabhan mu indi waxam yi ñàkk xorom yooyu maanaam boo ko jéemee indi baat yi ngay jëli ji sax boo ko dajale woon ba tarkib ko baat yi ñëw maanaam yi moo dul ñëw. dëgg la maanaam yi moo dul ñëw. dëgg la. nga gis nag ni téere boobu gëdd gi mu am ku ko xam dëgg dëgg nag da ko jox gëdd ndax ni ñuy jàppee suñu borom lañ koy jàppee moo gis tax mag ñu njëkk ña. Mm-hmm. boo duggeen ci daara yi aw kayit bu waddee da ngay gis ñu jël ko donte dañ koy seex lekk ko sax. Mm-hmm. moo leen gën a bàyyi ko muy taxawaal. Mm-hmm. seex ko lekk ko sax moo leen gën a bàyyi ko muy taxawaal. war ma ñoom dañ ko joxoon alxuraan suñu mag ñu njëkk mais xoolal jamono ji léegi dangay ngay gis ku yóbbu doomam daara lu tuuti rek nga ñëw songu suñ daara ba xuloo joxoo mm-hmm. ko jënd war ma maanaam déshabillé ko completement lu la neex nga dal ci kaw wax ko mm-hmm. te sëriñ daara bi dañ ko waroon a jox war ma nekkul ne ñun ñoo sàkk ñu di ñu jox war ma waaye li nga xam ne mooy alquranul karim ji nga xam ne moom la ñuy jàngale moo am war ma ci laa bëgg a ñëw sax waaw kon loolu boo boo boo développé ba pare ñu ñëw ci incha allah euh, bu ñu dee wax dëgg-dëgg lii problème bi dëgg-dëgg mooy nit ñi ñoom lañu war a fexe ñu xam alxuraan mooy la mhm. su ko defee ñu bëgg ko nag nit du bëgg lu mu xamul. Mhm. waaw boo xamee ne bëgg na ko. Mhm. bu boobaa bu yóbbu doomam dana xam yéene ji tax mu yóbbu doomam. objectif yooyu ma doon wax yëpp benn du ci tax kenn yóbbu doomam doomam daal. moo waral ñun suñu mag ña da nga daan gis koo xam ne bu yóbbu doomam sax def naa ne ko man yax yi laa waaw. loolu looloo nekkoon kàddu yi de. <laughs> ay yaxam laa laaj. ay yaxam laa nga xam ne kooku kon moom lim bëgg. kooku doo kooku doo doo doo doo doo doomam mu lay plainte. déedéet beneen mais mais kii di jox da doomam. mais du productivité mokkulul mu dóor ko mu plainte ko dafa am. te te fi mu ne daara yi sax ña ca tane. Mm-hmm. mooy ñi nga xam ne danañ ko fa bàyyi ba mokkal alxuraan. Mm-hmm. waaye ñooñu itam beneen problème daf ci posé waat am na ñoo xam ne. mais nag am na ay sëriñ yu dégg ndigal nag. buy mokkal ci am na ñoo xam ne bu ñuy mokkal alxuraan ci lundi. Mm-hmm. mardi ñu jël si ko. te bu njëkk ba dañuy mokkal alxuraan bàyyi sëriñ daara bi ba mu paree ci moom parce que li nga doon wax léegi Oustaz Ahmad Dame mhm. ci donga ak euh, alquran ak donga bi day fekk sëriñ bi pare ci moom waaye mhm. léegi sëriñ si daanaka xawatuñoo pare ci donga yi buy mhm. mokkal lëndi matt yi mais est-ce que bu njëkk ba dañ lay bàyyi ba nga paree ci moom ba nga ah, maanaam maanaam mokkal kese doyul déedéet parce que euh, bu dee ci internat yi xam nga li ñu li ñuy joxe ak situation bi ni mu demee moo tax bu xale bi mokkalee rek dañ koy daal di bëgg jël parce que mm-hmm. léegi dafay xaw a ci mm-hmm. mooy waral loolu waaye bu njëkk ba nit ki bu mokkalee alxuraan ci suñu jamono bi da ngay mm-hmm. beq bind kaamil bindaat kaamil sëriñ bi téye la fa sax léeg-léeg la nattu di la binduloo ay booleeg yu bare bari buñ paree nga foraatu fa dara ci njàngum xam-xam ñu defar la ba nga pare bu boobaa nga yor xale yi sax di leen jàngal di leen waaw di jàngalaale xale ci biir ba ba dëgër ba nga xam ne yow alxuraan da nga koy bëgg taxaw di ko naafe la ba alxuraan sax ci yow neex la mhm. waaye fi mu ne ni xale internat yi ñu ci bëree bëree bëri buñ génnee daanaka dañuy mel ni alxuraan ci boppam sax at rek buñ ko amatee boo leen laajatee fàtte nañ leen jàng mhm. parce que parewuñ ci ñoom mhm. loolu tamit ci masaakil yi nga xam ne daara yi ñu ngi koy dund Euh, ci la bokk am na ci yenn masaakil yoo xam ne nag ci biir daara yi lay am. Mhm. ala kulli xaal. Euh, mhm. yooyu xëy na mën nañ bàyyi oustaz daam. non non wala nga nga nga développé ba tey moom nag li fi développé en xam nga problème bi mooy. Mhm. moom am na ñoo xam ne xam nañ fuy metti waaye xamee wuñ ko woon nii. te dafay baax ñu ciy leeral. waa ah, waaw parce que parce que dafa dafa dafa dafa leeral point yu ama ama am solo. wallaahi wallaahi bokk na ci point yi ki nga xam ne dafa ñëw jàpp ne doomam ñeenti at war na mokkal. ñetti at war na mokkal te nit mën na ñëw ñaar am na ñoo xam ne sax ñaar at ndax eh, seen neexaayu xel mel na leen ko yooyu am na ñu ñëw ñetti at comme ni mu ko waxee ba ñeenti at juróomi at am ku ñëw fukki ak mënul mokkal kooku yàlla moo bind ci moom ne du mokkal léegi nag loolu loo koy xamee mën nga boole ñaari nit ñaari nit dugg noonu leen ci daara ñoo xam nag dañoo gaaw tam mën nañ nekk ñaari seex mën nañ nekk mag a rakk ñu duggandoo ci daara ji rakk ji mokkal mag ji mokkalul kii mokkal ci trois ans kële mokkal ca juróomi at loo ko waral mooy xel yi ñun ñoo dul bokk kooku séddalu yàlla la loolu nag jaanu na comme ni mu ko waxee parents élèves yi ñoo xam ko te beneen bi ci des nan la nit mën a ñëwee de sëriñ daara bi nga taxaw na da koy gëddu xool la neex nga wax ko ci loolu genre yi mais doom nag dafa sori yàlla doom li mu suuri suuri suuri xamal sëriñ daara bi àq bi ko yàlla jox mhm. àq bi yonent yàlla ma xam na jox sëriñ daara bi xool ko ba xam ko mhm. parce que sëriñ daara dafa am àq bu ko yonent yàlla Muhammad jox de. mu am àq bi nga xam ne it nag charia ci boppam daf ko ko jox yonent yàlla Muhammad bu demee ba wax ne man daara aaliman fa ka annama jalasanii fi dunya wa man jalasanii fi dunya maa yawmal xiyaam njol màkk ne ku ku nemmeeku borom xam-xam nemmeeku ko ba toog ak moom dangaa mel ni man nga toog ak adduna te ku toog ak man adduna ëllëg yawmal xiyaam màkk yow ñooy toog. te ku toog man na nga bàyyi xel ne aljana mooy sa kër toog rek toog la wax toog waa kon yéen yéen gënil moo na ci sëriñ daara bi wallaahi yéen sëriñ yéen gënil yuntu yàlla Muhammad waxaat ne ñi gën ci yéen mooy sëriñ daara yiy jàng ba pare di ko jàngale waaw loolu loolu dafa dafa siwul oustaz <laughs> mais léegi lan moo tax euh, hadis yuntu yàlla Muhammad boobu ñun ñu koo jëfe xayrukum man ta al alquran aha ñu gën ci yéen mooy ñi jàng alquran te di ko jàngale sëriñ daara yi jàng alquran ba pare di ko jàngale nangu ñu leen jox cër bu ñu moom ci moom comme li mu wax rek dañu ko jàppee ni bitig bi rek damay jënd rek suma paree parrainage. loolu nag tabaarakallaa ko doxul. doxul. dafa am sànq li uh-huh. Oustaz wax Oustaz uh-huh. da nga ne. Uh-huh. am ñoo xam ne dañuy par exemple man ma am sama doom mu lool ci kër gi. ma yóbbu ko daara ngir correction. wala ñeneen di ko def ngir règlement de compte ak ni ni te en général. bu fekkee ne ñun suñu jamono bokk bu fekkoon demoon nañ di jàngi man. dew ma woon carrément que genre di dem di fanaani wala et cetera man beneen fonk beneen beneen ligne bi laa la amoon beneen mhm. forme daara bi mhm. di xëy mhm. jàngi wàcc ñibbi re ngoon nga gontu ñëwaat bu xanaa bu fekkee koor lañ xiyaamuñ layli foofu et cetera loolu lañ doon def foofu mais lu ci ëpp moom ñun dañ doon dem di ñëw mais luñ doon gis ci daara yi léegi gisatuñ ko lu waral loolu parce que temps yooyu ñemewuñu sax am na ay alqur maanaam am na ay téere yuy maanaam yuy xotteeku ci kaamil yi mhm. da ngay gis ne naa cër gi ñu ko doon jox avant mhm. mais léegi joxakuñ maanaam joxatuñ ko mhm. parce que setin dafa bokk ci islaam mhm. islaam dafa bëgg lu set. te mhm. alquran fi ñu koy jàngee dafa bëgg lu set. mais lu tax ñu gën a bari arrière. Mhm. muy da gis koo xamante ne daara la nekk da nga koy yërëm. boo ko jegee nii ak nii dafay dafay dégager odeur bu extraordinaire fi ñuy fanaan hygiène bi amu ko. ak yeneen ak yeneen moo tax ñu gën a bari. dañuy xaw a retirer seen doom. ci alquran. parce que dañuy yóbbaale sëriñ daara dañuy yaakaar ni ñoom ñoo négligent. te loolu dañ koy bari di gis. waaw am. day am euh, alaaj Cerno mhm. euh, yooyu nag léeg-léeg fi muy delluwaat nag mooy euh, dafay delluwaat ci ay moyens mhm. maanaam am am yi mhm. euh, réew yi nga xam ne yu xaw a am tuuti alal lañ développé boo demee foofu boo gisee kiy jàngale ak kiy jàng daanaka doo leen xàmmee ñoo bokk lu ñuy sol yére yére yu set wecc bokk fu ñuy toog lépp set parce que nag dafa am ay moyens yoo xam ne dañu mhm. dañ wala bokk ay ay organisation la ñu manqué la sax ndax Sénégal kenn du wax ne mooy amu fi mhm. boo gisee ni ñuy tabaxee ak ni ni réew mi demee di nga xam ne moyen am na fi xam nga lan moo fi manqué mu mhm. organisation loolu moo tax sax damay profité waale di dugg ci association bi nga xam ne mooy ànd liggéeyal daara gis nga association ànd liggéeyal daara li gën a tax ñu sos ko mooy gis précarité bi nga xam ne moo am ci daara situation bi ni mu demee ñu gis ne boo demee ci réew yu mag yi li ëpp ci seen économie fu moo koy taxawal doxal. mu mhm. nga lan mooy fu mhm. mooy alal joo xam ne dañ koo taxawal ci barab am lu cay génnee lu am solo ñu koy jël di ko delloowaat ca fa mu war a jëm moo xam ca daara yalla moo xam ca objectif ba ko tax a rek ñu delloowaat ko fa. Mhm. alal yu mel noonu nag boo demee ci eh, mel na ko mu ngi ko doon wax keroog eh, ndaje mañ amoon oh, boo demee Maroc gii ñu gën a jege. ministère bi nga xam ne moo yor wàllu waqfu yi seen budget ëpp na ñaari yoon budget ministère des affaires étrangères. allah akbar ñun wàll waqfu dañ koo xawut a xam sax daanaka boo xoolee. Euh, ku mel est am na benn budget bi ñu leen jagleel yéen sax. Euh, waaw état bi mi ngi ci am ay jéego yu muy def donte xëy na dajagulut waaye état bi tabax na benn immeuble boo xam ne euh, mi ngi toll ci douze milliards fii ci école. Euh, Amadou Assane yi la xaw ma mooy ci plateau. Mhm. Euh, la cay génne nag wax nañu ne ci daara yi la jëm. la mhm. jotaguma ci xam na waaye mel na ni wax nañu ne daal ci daara yi la jëm ala kulli xaal waaye li ma bëgg a wax foofu mooy euh, association bi bi mu gisee situation yooyu gis aussi réew yi ni ñu organiser woo ci wàllu waqfu ci lañu ne nañu jéem a amal waqfu boo xam ne la cay génnee. moom la ñuy jël ñu koy delloo ci daara yi moo tax boo seetaanee sax suñu ndaje mu amoon grand théâtre mhm. dimanche bi weesu mhm. bi ko jiitu di nga gis benn immeuble boo xam ne ñu ngi ko taxawal muy R plus mhm. boo xam ne ñu ngi évaluer coût gros œuvre bi ci 700 millions buñ paree engagé euh, finition yi li ciy war a génnee ci euh, location toll na ci 6 millions et quelques yoo xam ne dañoo visé weer bu jot weer bu jot dañoo visé daara ji nga xam ne mooy Abdoulaye Massoud ñu tàmbalee ci fële ci Ngaabu Mm-hmm. waaye terewul nag suñu objectif mooy mu doon ay xaaf ay waqfu yu baree bari yoo xam ne buñ paree dañuy fexe ba daara yu baree baree bari man cee am jot seen wàll gis nga loolu bi bu ci sénégalais yi yeew woon ba xam fu mooy lan bu boobaa da nga gis ne situation yii ñuy wax ni yëpp mën naa saafaraw mm-hmm. parce que fu dafa sakkan mm-hmm. xam nga ci wàllu alal nit mën naa jël saraxe ñu bindal ko tuyaaba eh, sarax ba foofu la fa la tuyaaba ja yem mhm. waaye li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne nit bu faatoo ñett dong la dese léppam dagg na ba mu des ñett mhm. wa idaa maata ibnu aadama inqataa anhu amaluhu illa min salaasin mhm. bu doomu aadama faatoo ñett léppam dagg na xam nga doomu aadama mënta faatu dellu si waat ne day julliwaat ñaari raak mënul nekk <laughs> doomu aadama mënta faatu dellu si ne day woor wala mu dem aji ji kon lam doon def lépp ci tuyaaba ja bindal nañ ko ko dagg na waaye waqf nag du dagg waqf xam nga mooy lan bu ñu ko doon joxe misaal daal mooy tëdd muy dox. comme sadaqa luñ jaari. mooy sadaqa jaari waqf ci boppam mooy sadaqa jaari mooy sarax boo xaw ne day continuer day ci misaal nga bënn ab teen. Mhm. faatu bàyyi ko fi. Mhm. lay génnee ca teen ba lépp ku root ca teen ba benn baag ñu bind la tuyaaba mu ñëw fekk. am nga ci wàll moo tax. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba Abu Bakar kon tabax teen ba ñu ba ñu ba ñu demee ca xay xaybar. Abu Bakar am fa suuf su yaatu. dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de am naa. tey jii alal joo xam ne mosuma am alal ju ko gën a gàññoo maanaam suuf su yaatoo yaatu soo xam ne am naa ko ca xaybar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko eh, in shi'ta habasta asluha wa tasaddaqta biha maanaam bu la neexee nga téye cosaan li la cay génnee nga di ca saraxe maanaam nga def ko waqf xadis bu gudd la waaye dama ca dagg lool rek bu la neexee nga gé loolu moo tax ñiy taarif waqf nga xam ne dañ koy xamle hmm. dañ naan mooy xabsu maalin yumkinu al intifaau bihi ma hmm. baqaa'i aynihi hmm. mooy alal joo xam ne dañ koo taxawal hmm. ba pare mu mën a jur njariñ jëmm ja des fa kon luñ taxawal mu mën a jur njariñ te jëmm ja du fa des loolu mënut nekk waqf ci misaal ab sondeel mënta nekk waqf ndax sondeel ba des na koo taxawal muy leeral néeg bi kon mi ngi jëriñ waaye bu yàggee jëmm ja du fa des kon tool boo xam ne dafa am tàndarma lay génnee ca tool ba di tàndarma ja ngay génne di ko yóbbu ca ña ko yittewoo loolu mën naa nekk waqf immeuble taxawal lay génnee ca immeuble ba nga koy jël di ko delloo ca ña ko aajowoo loolu mën naa nekk waqf mhm. ab bu buñ bënn ndox ma cay génnee nit ñi di ko jariñoo waqf la mhm. jàkka joo xam ne tabax nañ ko mhm. nit ña taxaw di ca julli ñu ngi cay jariñoo loolu waqf la yooyu mooy waqf waqf bii nga xam ne nag moom la ñu visé muy taxawal immeuble la cay génnee mën a dellu ca daara ya waqf yooyu nag moo bëriwut fii ci réew mi lu mel ni Serigne Mourtala maa ngi koy junj léegi. Mhm. xam ngeen ne am na wax école am yi di Azhar waqf la. Mhm. loolu lu ko ëpp tiyaaba. Serigne Mourtala ci région yi Sénégal yi néewaane région boo xam ne danga fa dem te loolu da nga faa fekk Azhar. Mhm. mu am ay kaar yoo xam ne waqfu lillah lañ ci bind. macha allah ah. loolu model la. loolu nag moo bëriwut ci réew mi moo tax ñu ngi woo sénégalais yi di leen woowaat encore une fois ci ñu bàyyi seen xel ci waqfu te xam ne waqfu nekkut ne. benn nit rek forcément mooy génn alalam tax tabax waqf mhm. bu fekkee mën na ko loolu falilaahi alhamdu mhm. waaye nag bu fekkee mënu ko mi ngi mel ni jàkk yi ci am ci réew mi rek mhm. ñaata jàkk moo fi nekk yoo xam ne ay nit dajale seen alal tabax ko xanaa doone ma jàkk du waqfu de jàkk yëpp fu la parce kenn du ko donn kenn du ko jaay kenn du ko leble kenn du ko maye fa xas ba taxaw daal lislaam moo ko moom loolu moo tax nag lislaam dafa war a am alali en tant que personne morale nii ustaas daam a amee alal jum moom noonu la lislaam war a amee alalam parce que lislaam dafa ami soxla ndax nee na lil fuqaraa alladina uxsiru fi sabilillahi laa yastatiuuna darban fi l ardi yaxsabuhum aljaahilu agniyaa min altaafufi taarifuhum bi simaahum laa yasaluuna annaasa ilhaafa wa maa tunfiqu min xayrin fa inna laa bihi alim ñi nga xam ne yàlla da leen a gaw ci barab lil fuqaraa alladina uxsiru ñiñ gaw ñooñ mooy ñan ku nekk ci daara gaw nañ la ci barab ngay liggéey lislaam kooku mënatoo def dal ki nga xam ne dafa toog yor jàkk di war a jiite ajjuma di war a jiite julli juróom kooku gaw na boppam ci lislaam gaw na ko téye na ko mhm. l'islam moo ko employé mhm. l'islam moo ko employé mhm. ñooñu nag la yàlla wax ne lil fuqaraa alladina uhsiru fi sabilillahi ci yoonu yàlla lañ leen employé laa yastatiuna darban fil ardi Mm-hmm. mënul leen a nekk ci marché bi di jaayantee ko jëndante loolu mënuñu ko mm-hmm. taa bu fekkente ne gis nga leen da foog ni ñuy jeexaluñ dara mm-hmm. yaxsabuhumul jaahilu aghniya da ngay foog ni ñi ñu woomal lañ jeexaluñ dara ndax dañoo fegu ci alalu jàmbur soxlaluñ kenn dara laa yasaluuna naasa ilhaafa ñu ñuy fëgg ay bunt di laaja kay fu ne ñu fëgg fa di di di di tàllal loxo dañuy toog rek maandu jàpp ndeysaan seen jàmbur ci daara yi ñooñu nag moo tax lislaam war a am alal yoo xam ne daf koy delloo ca ñoom te loolu lan noo ko mën a solutionné mm-hmm. mooy amal ay waqfu yu dëgër mm-hmm. yoo xam ne lay génnee ca waqfu ya ñu ko yóbbuwaat ci daara yu mel noonu su ko defee yooyu nga doon wax yii yëpp mën naa dem ba saafaraw d'accord mais am na ñoo xam ne du ñu def fi sabilillah maanaam dañuy def pour falu tabax jàkka ngir dara mm-hmm. parce que dañ leen ko digal wala ñoo xamante ne dañuy génnee ay sarax génnee ay tappi parce que dañ leen ko digal maanaam defuñ ko ngir maanaam ngir allah subhanahu wa taala dañ koo def rek juste parce que dafa am luñ ci luñ. waaw moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innamal amalu binniyaat mm-hmm. gis nga ñaari nit mën nañoo ànd kii joxe million kii joxe cent franc kii joxe cent franc am tuyaaba ju jeex kii joxe million du am sa du am benn tuyaaba mm-hmm. kii génne di joxe bu fekkee dafa génne joxe ne sarax lay def mm-hmm. tuyaabay sarax lañ koy bindal bu génnee ne day def waqf tuyaabay waqf lañ koy bindal muy sadaqa jaariya bu génnee ne dafay joxe hàddiyee muy maye tiyaabay ku maye rek lañ koy bindal waaye nag la nga xam ne moo ko tax di joxe loola mooy yéene ja ki nga xam ne dafay saraxe bu fekkente ne moom dafa toog ba mu yàgg mu jël ci alalam daal loo xam ne lu am njariñ la mu jox ko ku soxla kooku dañ koy bindal tiyaabay ku saraxe waaye nag comme li nga wax dafa am ñoo xam ne sarax yi ñuy saraxe la ko lal ci suuf loola moom wax dëgg yàlla am ak njabar la mën a lañ ko mën a tuddi ñu su tuddee lu dul ak njabar ñun loolu dañ koy dund. Mhm. man toog naa ci sama daara ak nit ñëw fa indi fa aw bëy ne da koy saraxe fekk ma génn ñu woo ma téléphone wax ma ko ma ne leen waaw wax leen ko na ko fi bàyyi ñu ne ma nee na bëgg ñu ray ko ma ne ko déet man joxe naa dépense ba pare ñu ngi togg midi jot na. Mhm. Mhm. mu ne ma kon ndax mën naa génn ci bitti ma ray ko indi la yàpp ma ne ko déedéet boo ma dee sarax aw bëy da nga fi bàyyi bëy yu heure bu ma ci. amee aju ah, ah, ma ray ko. mu yorwaat aw bëy aw bëyam yóbbu. kon xam nga sarax boobu. am na lu ne ca ginnaaw mhm. te sarax nag dara wërta nekk ci ginnaaw ndax ak jaamu yàlla la te ak mhm. jaamu yàlla kenn warul nangu ñu di la ca tegal ay sart ku dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yonente bi sallallahu bi mu ci teg alquran sax moo ko ci teg mooy ne lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuuna mhm. bul joxe loo seetal ca la nga gën a soxla nga jël ca joxe ko te yàlla dong tax wallahi dana la fànqal li nga bëgg a fànq ciw ay dana la xëccal li nga bëgg a indi ci njariñ kon ki nga xam ne mi ngi tëdd guddi gént wala benn waaye toog fële rek ne ko saraxel aw bëy wu mel way xaram benn melo jox ko ba imaam ba léeg-léeg sax ñetti kayit lañ lay indi léeg-léeg ay puso yoo xam ne yow boo ko dee toog di ko xalaat da ngay ne nit ñi dañoo sànk di wéy la ko yóbbaale mooy ñi nga xam ne ñoom lañ ñooy nekk ci koñ yi di di di di waaw di leen digal yoo xam ne delloowuñ ko ci lislaam ndax buñ ko delloowoon ci lislaam sarax boo xam ne bopp lislaam la mhm. bu simple la mhm. yow daal yaa toog ba mu yàgg rek nga bëgg sarax wallaay nga génn ci li nga am sarax. fi sabilillah fi sabilillah. jeex na amul benn sart. <laughs> amul benn sart. jërëjëf yow moo tax euh, yooyu euh, dañ cee war di yee nit ñi. Hmm. oustaz Thierno dañ cee war di yee nit ñi ñu xam ko su ko defee nit ñi ñuy dépenser seen alal euh, bokkuñu ay yéene. ji dépassé seen alal kenn ku nekk ak sa yéene ku nekk ak sa yéene rek lañ lay fay la jeex na waaye li ma bëgg a insister mooy nit ñi gën a conscientiser wu. Hmm. ci waqf. gis nga waqfu dafa sakkan boo demee ci réew yi nga xam ne parce que waqfu dem nañ ba idée bi sax tubaab yi jël nañ ko mhm. Sorbonne gii nekk France waqfu la mhm. moo tax wax fu bu ko lislaam di wax moom daf naan waqfu fil islaam mhm. du bàyyi baat bi noonu rek mu dem mm, waqfu fil ndax boo demee Harvard fële ca États-Unis université bu mag a mag la boo xam ne budget mu ëpp budget budget Sénégal gi trois fois boo ko dajalee trois fois budget université boobu moo ko ëpp waqfu la boo xam ne tubaab yi dañuy jël ku mel ni Sorbonne bii nekk France dañuy jël ñoom am seen alal toog ba mu yàgg ñu ne dañuy tabax ab université. def ko wax bàyyi ko noonu. Mm-hmm. nit ñi ñëw di fa jàngee di fay ci solde bu minime. tuuti waaw. loolu mais bu dee ci lislaam fu yi nga xam ne moom la ñuy wooyee fu ci lislaam mi ngi gën a bëri ay turki. mel ni université ki immeuble boobu ngay gis ci jàkkaarloog xaramu màkk ba. Mm-hmm. mooy tañ def ci montre bi. Mm-hmm. boobu waqfu la boo xam ne lay génnee ci ci ci immeuble bi. mooy. moom ca la ñuy fay courant bi xam nga ne boo demee ci jàkka jooju lañ fay jëfandikoo ci courant ku ko naroon a jël engagement tey foo jëm mm. courant bi ñuy jëf ci ci jàkka ji moo koy fay mm-hmm. ñiy setal barab bi foofu di ko barab bi doo gis dara lu tax la tey génnee moom la ñuy jël di ko setalee barab bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ ko cay def boo demee fii ci Turquie dañ fay fekk ay fu yoo xam ne dem nañu ba lay génnee ca waqfu ba ñu dem ba tabax ci hôpital boo xam ne wax nañu ne ci réewi Europe yi lu mat personne danañu jógee ci réewi Europe yi ñëw Turquie di fa fajoo ji gratuitement wala boog di joxe lu tuuti ngir mën a faju te waqfu bi moo koy supporté macha allah lu sakkan a sakkan la ndax li tax mu sakkan mooy waqfu da di alal joo xam ne fu mu xas ba taxaw day dund day wéy day dolleeku mhm. loo xam ne kenn du ko jaay kenn du ko donn xam nga bu fekkoon dañ koy doon nit ki ko doon yàqte ko wala ñu jaay ko ka ko jaay kañ ko jaay sàggane ko wala ñu doon waaye waaye yooyu yëpp du ci am kenn du ko doon kenn du ko jaay kon fu mu xas ba taxaw uh-huh. dafay dund bu doon terrain la uh-huh. nga jënd terrain bi cent millions tabax ci immeuble un milliard uh-huh. bu dundee deux ans cent immeuble bi même bu daanu woon sax. Hmm. terrain ba jël na valeur un milliard. Hmm. macha allah <laughs> kon kooku jërëjëf amul amul perte. jërëjëf Oustaz bu baax a ci ci ci ci ci maanaam xam-xam bu sell bi nga daal di wane. waaye nag waxtu bii bu daal di jotee dañuy daal di dugal suñuy question forcément y a des internautes yoo xamante ne dañuy daal di suivre. Hmm. am nay questions yoo xam ne dañ koy daal di amal ku koy dal di joxe muy aji ratu mu ngi nii taxaw. salaamaaleykum aji. Mhm. maa ngi lay nuyu di nuyu oustaz di ko ziar bu baax a baax di nuyu aussi invité bi di ko wax ni waxtaan bi am na solo loolu comme niñ koy defee rek à chaque fois seen émission bi di yoor yoor rubrique bi nga xamante ni moom la ñu dippee biir internet ngeen di am possibilité di poser ay questions ñu koy tontu directement comme niñ koy defee rek à chaque fois ci d'accord à chaque fois on choisit deux à trois questions wala mhm. quatre bu fekkee bari na mhm. ñu jox ko régie ngir rek daal ñi nga xamante ne ñoom ñoo am ay questions pour suñu invité en général on le déjà oustaz waaye bu fekkee y a des questions. Euh, uh-huh. nga indil ñu ko directement. d' accord ñu commencé ko rek ak première question bi moom nee na oustaz man dama yóbboon sama doomu daara mais lépp lu si war rek maa ngi ko doon def mais après moom condition yi mu fa nekkee dara baaxu ci ba dama ko faa mujj jëlee. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. yi nga xamante moom la bëggoon xale bi nekkee nekkee ko fa. Mhm. te lépp lu si war moom def na ko. te bari na lu ko mu ngi koy def maanaam ko war mu ngi koy def. waaw loolu xam naa euh, question la boo xam ne. Mhm. pour nga tontu ci directement dina jafe ndax dëgërul xam moom la muy wooyee lu ko war. Mhm. mu doon joxe xaw ma nu mu toll. ñaareel ba itam mooy condition ya la muy tuddee condition parce que itam. condition moom condition xaw ma yan condition la ndax itam <laughs> moom mën naa tuddee loola condition yoo xam ne. yu yu yu anormal la te fekk amaana condition yooyu yu tane la mhm. parce que itam lu nit mën a wax itam mooy daara yi moom mhm. li ngay joxe yow bis boo defoon calcul ci xale bi euh, da lay wóor na lépp dafay delluwaat ci xale bi te itam ci misaal bu doonoon moom kiy joxe daf ne quarante mille lay joxe man mhm. sax cinquante mille xale bi ci lañ ko war a fayal ki koy jàngal ci la war a añ ci la war a reer ci la war a ndékki bâtiment bi mu dëkk ci la ko war a fay ci lañ ko war a fayal courant ci la war a fay ndox ña koy toggal yooye bis boo ko calculer nga delloo ko ci xale bi bu fekkee ne dangaa séntu yenn situation yoo xam ne nag da ngay mel ni ku nekk Paris yooyu boo nga séntu nga lu jomb du mën a nekk moom lu lu li mën a am rek mooy lu tane rek loo xam ne xale bi daal wax dëgg yàlla am dina mën a lekk-lekk gu yemamaay dina mën a tëdd fu tane Euh, dina mën a itam dund dund gu tane rek waaye amaa dund gu kawe kawe moom loolu ku ko bëgg dëgg dëgg wax dëgg daara yi ak li nit ñi joxe mënagu koo supporter dama xamu nag lu muy wooyee condition yoo xam ne yu baaxut la mm. njàng ma moo baaxut wala lan ak lan waaye loolu pour nga mën cee tontu dëgg dëgg dafay fekk nga mm. xam nga xam dëgg dëgg la muy wooyee moom Euh, condition yu baaxut te njàng ma la wala te nekkinu xale ba la wala yu mel noonu loolu moom mënoo si cee tontu te xamoo dëgg-dëgg. Euh, mais Thierno. est-ce nekkul dafay waxee parce que am na ñoo xamante ne euh, boo leen laajoon ci seen doom chaque mois cent mille francs sax dañ koy def comme moom li mu doon wax sànq dañuy gis école bu tëjee bu tijjee ñu jàpp xale yi solo leen ay yére yu rafet yóbbu leen école. moom est-ce que nekkul aussi cent 100000 francs sax wala lu ko ëpp lay joxe chaque mois mais dañuy jàpp xale bi di ko yelwaanloo alors que waxuñu ko woon loolu. est-ce que est-ce que du loolu aussi. xam nga oustaz détaillé na détaillé na forme daara daara yi am. Mm. daara yi yelwaan yi est-ce que ñoon ñi ñi yóbbu seen doom ñi ngi joxe xaalis. na oustaz détaillé loolu mu leer. Mhm. pour nga dégg suñu waxee mhm. da man de. ñeneen ñi ay neexal fay ah déedéet yaakaar moom di suma daara bu yerwaane te ñu fay. yëkkati 100000F joxe ko ba pare ñu mhm. yerwaan la sa doom loolu moom ma yëkkati li muy yëkkati jox ko oustaz. waaye nag mais nag moom gisaguma man moom li muy joxe par mois moom. Ah. ñi ci gën a bari la ñi ma ca gis moom rombut 60 mille francs ñenn ñi sax ay vingt cinq mille trente mille quarante mille soixante mille donc loolu nag mhm. euh, gisaguma ci it kenn koo xam ne nag ci internat yi dafay jël xale yi di leen yalwaan loo mhm. ci internat xanaa muy ñi nga xam ne dañuy jàng di ñibbi dañuy yalwaan wala yu mel noonu comme ni ma ko détaillé woon ci njëlbeen mm-hmm. waaye nag ci internat yi ku yalwaan loo xale moom loolu gisaguma ko ci ala kulli xaal li ma waxoon internat kay tëju la sax mm-hmm. waxu ko la tey tëju kay <laughs> bi ngay fay kay mooy tax sa doom di yalwaani waaye fay sa doom di yalwaani loolu kay tëju la internat mooy tëju tëju di jàng tey nag tey nag li ñu war a xam mooy mm-hmm. euh, même ñi nga xam ne dañuy jël seen doom nga xam ne wala sax ñoom ñoo jël seen bopp. Mhm. yóbbu ko fële ci bàngoo gi ñu formé leen ñu nekk ay militaire mhm. condition yi ñu bëgg a dund dëgg-dëgg amuñu ko dañuy am condition yu tànn rek ñu formé leen. Mhm. buñ génnee nag soog a jariñ. kii wut àddina ginnaaw moom moo mën a muñ loola kii wut alquranul karim. am na yu bare bari yoo xam ne nag foog ñu muñalante ko. xanaa daal muy lu jéggi dayoo. ay dóor yoo xam ne ay gaañ xale bi wala loo xam ne cëram mën na cee yàqoo. wala yu mel noonu waaye nag ci wàllu nekkin boo xam ne. mais des fois nag du sëriñ bi mooy door xale yi de xale yi ñooy dóorante seen biir ba gaañal. Hmm, waaw loolu yëpp day delluwaat ci responsabilité sëriñ bi nag mhm. moom. Mhm. parce que day day delluwaat ci responsable sëriñ bi mais xam nga ñu ci bari comme ni mu ko waxee xale yi. Mhm. dangay yor ay xale yu baree bëri kii génn def kii kii kii génn def kii lii kii génn def kii lii surtout ñi nga xam ne sax dañuy yarwaan. Hmm. ñun ba ñuy yarwaan loolu dal nañu. Hmm. dañuy yarwaan di kojante waaw lu ne ñu dugg ci. yooyu moom ko jaar ci daara wala wala daara Saalum ñu dem ci àll ba. Mhm. sëriñ bi du xëy. ñu dem ci àll ba. ñu caxatan ñu songale. ñaar ñii yu maa ah, waaw ah, non ah, daara daara xam nga léegi dafa soppeeku. waaw ñun ba ñu nekk ca daara ja dañ doon gasante gas. Mhm. dañuy gas am pax dugal ci sa tànk ñaari mhm. tànk yi gas kii am pax dugal ci ñaari tànkam ngeen jàkkaarloo di xeex. kenn du mar a génn. loolu dund ko. dund nañ fii li ñu daan wax nooraan nooraani jógee nañu mbayeen mi sara fii ci tuubaa nawet bi jeex nga war a nooraani dox ba njote siyaan jaar Kaffrine Birkilaan njote mhm. wàcc si Kaolack da ngay dox di fanaan ñaata fan di dox di fanaan mën ngaa def weer dox man loolu dund naa jógee mbayeen misara ca ginnaaw tuuba dox jaar biir Touba génn dugg jaar côté xelkom génn di jeexaat gerte mhm. fu la fanaan fekk nga fanaan boo xëyee demaat bu jàng jotee nga jàng daanaka waxtu yu néew yëre bi nga sol day nekk ci sa kaw ba toj ni ñu ko daan wooye yére bi daa toj ci kawam nga xam ne di nga toog weer doo sangu yére bi dem ba xotteeku ba toj ci sa kaw ngi jógee fa jaar ay njote si yaan wàcc si jaar kaw ñëw ci marché saako bi di yalwaan ay yére ñu di la sarax ngay sol ay yére boole ko di jàng ba mokkal alxuraan situation yooyu yëpp ak yu ko gën a sax doy waar dund nañ ko foofu di sangoo am sebet ngir manqué ndox Mm-hmm. ngir ñàkk am ndox nga xam ne lu ñu sebetee mu dem mu dem bay métti ngay lekk cox ah, allah ñun daara ji léeg-léeg gëj a lekk yàpp doon nañu yóbbee bool boo xam ne dañ koo dëbës xam nga dëbës bool bi daa bënn ñu ñu dugal ci morso takk ko ngir lekk ji bañ a tuuru loolu mooy dëbës mm-hmm. dugal ci morso takk ko fas ko mm-hmm. ñuy lekk ba mu yàgg daj morso bi di ko xëccoo yaakaar na yàppal <laughs> yooyu yooyu maanaam daara yi soppeeku na de nit ñi nag ñoo bëgg loo xam ne wax dëgg yàlla am mu wax dëgg fi mu ne nii eggagut fañ bëgg mu egg fa dëgg-dëgg. loolu pour mu egg fa foog nit ñëpp ñëw ñu ànd jàppalante taxawal ay waqf yu dëgër. jéem a solutionné problème yi daara yi mën a nekk ci condition yi normal waaye li fekk loolu amut. mu ngi am changement de. mi ngi am changement de lu ngeen dund. waaw ñun duñu ko dund. waaw ñun lu dund. ñeneen ñeneen duñ ko dund day gën a yomb rek te day gën a yomb rek. te te gën a yomb xale yi di a paresse. waaw waaw a bàyyeeku. moo tax itam foog ñu bàyyi xale yi tuuti ñu. incha allah Adji mm. euh, la deuxième question s'il te plaît. deuxième question bi moom nee na oustaz lan moo tax woolootuñu daara yi mu ne nga foog problème bi ci ñan la. lu tax y' a pas y' confiance. Mm-hmm. ci ci ci daara yi ban problème bi fan la féete. li euh, wóolootuñu daara yi de moom lu tax mu ne woolootuñu daara yi nit ñi moom ñu ngi wóolu daara yi. parce que mm-hmm. xale yi euh, nit ñi ñu ngi indi seeni doom daara. Mm. maanaam kay li waroon a doon laaj bi mooy lu tax nit ñi di indi seeni doom daara ngir objectif sàngam ak objectif sàngam bu bokkut ak indi ko ngir mu wokk mais mën na doon mën na doon question bi parce que fu mu ne nii ci ay actualité parce ñoo xam ne dañ naan mhm. da ah. ngay gis xale yu ndaw yuy yarwaani yuy def nangam ak nga ba tey ne tamit ñii di leen tëddee ñeneen et cetera mhm. loolu yëpp day tiital waaye waajur gi nga xamante ne dafa bëgg a yóbbu dooram doomam daara. waaw waaw mais loolu moom euh, daanaka nag boo xoolee wax ja fa mu egg jëf ja egg eggu fa. Mhm. ndax itam boo xoolee ñaata daara ñu nekk ci senegal bari na mhm. Mhm. taalibe yi ëpp nañu deux cent mille taalibe. ëpp nañu ko di wéy. te baat boobu boo ko déggee bala nga koo déggaat kenn du xam kañ lay doon. te li nga ciy dégg lépp nekkul dëgg. yëpp waxuma ne yëpp dëgg la nag mhm. du dëgg waaye nag li nga ciy dégg lépp nekkul dëgg kon mu mel ni dafa am ay benn benn yoo xam ne léeg-léeg ay rëcc rëcc la yuy dal doomu aadama loola nag li ma waxoon ci beneen émission rek laa fiy waxaat doomu aadama du malaaka mhm. jamono ji nga xam ne révélation mi ngi wàcc muy mhm. waxyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk fi di dund ak saxaaba ya sax ay rëcc rëcc dafay am xoolal jaww jooju jaww joo xam ne jibril la ngi ñëw ak a dem wax yu di wàcc yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk fi teew ak i saxaabaam terewut léeg-léeg rëcc ci am ci doomu aadama mhm. malaaka mooy koo xam ne laa yaasuuna laa mhm. moom du mooy yàlla li ñu ko digal rek lay def doomu aadama nag léeg-léeg mu am rëcc rëcc mhm. waaye par rapport ak rëcc rëcc yooyu ak fii wax ji egg demeewut noonu ndax li ne ci daara ci Sénégal boo calculé woon pourcentage bi ak dongo yi ak li xew ñu ko ñu koy ñu koy euh, médiatiser ci ci wet googu léeg-léeg tamit am ci ay yàqkat yoo xam ne dañuy jël tuuti yëgal ko yëgal ko ba mu egg foo xam ne demeewut noonu eggul foofu loolu nag wax dëgg yàlla ma euh, mënu si ci àtte daara yëpp loolu tamit mënta teree jullit ñi am confiance ci daara yi mm-hmm. jullit ñi moom am nañ confiance ci daara yi mm-hmm. daara yi fees nañ jàll ñu ngi yóbbu seeni doom daara ñu ngi dem mm-hmm. ñu ngi dem ñu ngi dem daara da ngay dugg da ngay dugg da ngay dugg daara fekk wax dëgg ñaata boo demee ci daara yi am xam ne gis naa fi daara joo xam ne waxuma la ñaar téeméeri nit waaye xanaa ay junniy nit. gisoo ay junniy junniy nit. gisoo te lépp ci benn ndodd la ñuy taxaw. waaw dama demoon dama demoon côté kawoon. Mhm. am na benn am na mooy Kaffrine boo boo boo paasee Kaolack. Mhm. dëkk bi nga ciy teg. kawoon à côté xam naa kawoon dafa am benn daara Serigne Sali bu fa daal di nekk mhm. waaye li fa nekk ci ay doomu aadama mhm. ay xale yuy jàng dafa bari mhm. def naa fa benn reportage waaye kenn ci ñoom du yëkkati xanaa bon loo yéene sëñ bi rek vingt cinq mille comme li ngay wax mais bari nañ bari goo xam ne te lépp sëñ bi moo yor seen lépp nag seen lekk seen naan te xale yi du ñu yelwaani waaw loolu moom loolu day am moo tax nag euh, loolu lépp li ma waxoon léegi rek organisation bu amoon dëgg Euh, dañuy am ay awqaaf yoo xam ne la cee génne day mën a jàppale daara jooja di jàppale yeneen xam nga alquran yàlla moom moo ne inna nahnu na dikra wa inna lahu la xaafizun yàlla moo nar mu des si moom moo ne man maa jël engagement wattu ko hmm. bu xasee jël engagement moom yàlla inna nahnu nazzalna dikra ñun ñoo ko wàcce wa inna lahu la xaafizun te danañ ko wattu hmm. bu xasee jël engagement boobu kon alquran force dafiy des moo xam sëriñ daara ba dafa dajale ñëpp ci biir daara ja fayuñ dara wala ñu ngi joxe wala joxe wuñ lu mën a xew rek nga yóbbu sa doom daara nga ñàkk ko yóbbu nit ñi moom danañ yóbbu seen doom daara alxuraan dana fi def danañ ko continuer di mokkal loolu moom mooy li am léegi nag yeneen retraité yi ci des ñaan yàlla day am Adjaratou baal ñu droit euh, troisième question bi waxtu bi xoj nañu d'accord alors lan ngay lan euh, question bi non non euh, baal ñu dernière question bi d' accord mm. en tout cas amoon nañ mbégte ak contentement comme ni ñu koy defee rek à chaque fois wante balaa boobu rek di def benn petite parenthèse parce que Thierno am na benn daara bu demoon ànd fa ak Bijou Ndiaye moom chaque année dafay jàppale daara yi wante itam pouponnières yi bi ñu demee euh, daara yi ñu ne mm-hmm. carrément comme élection yi buy waaj a ñëw dañuy sonal mm-hmm. xale yi torop des fois dañ leen di sàcc wala ñuy def ci ñoom ay sacrifice donc mu nekk loo xamante ni rafetul benn yoon parce que ñoom ñëpp suñuy doom la te aussi ay xale lañ nañ leen gën a jox gëdd wante itam ñu xam ne ci population bi euh, la ñu bokk loolu rek laa amoon lu ma ciy sànni donc di leen jox di daje wante itam di remercier ki jaar ci bopp bi muy euh, Faturaan moom aussi euh, chaque jour moom may accompagner désormais merci beaucoup mmh. merci à toi yaa oustaz alors ñu ñu tàggatoo vite fait xanaa kay ñu tàggatoo rek tabaarakallaahu te ñaanal oustaz taxawaay bi yàlla na yàlla fay bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallah waay Thierno ñu jaajëfal lu baax a baax man moom tey sama yaram bi dafa mel ni dafa xaw a kii mu ngi ma ma ma nuyu it tabaarakallahu aja astu aja astu mm-hmm. ma kii bi nga xam ne dafa bëggoon ñu jàllaleel ko ci tabaarakallahu tàkkusaanu Seydina mm-hmm. Limaamu Laay di ñaanal soxna Xadi Kebe Sall ak sargal alxaaji Mamadou Laay Ndir insha allahu taala programme bi nag 9h danañu jàng alquran 17h mooy mise en place bi 18h bu jotee bu leen laay commencé tabaarakallahu ci jikar yu neex a neex 19h conférencière bi incha allahu taala loolu la ñu bàyyi ko xel bu baax a baax incha allahu taala fële lay demee en face kër Mamadou Laye fa lay am bu soobee yàlla incha allahu taala la kañ nag moom laa gisul date bi wër naa ba sonn waaye gisuma ko xanaa boole moo koy def Malika le 20. incha allah le 20 incha allah novembre Malika. bu baax a baax. du fi yem nag incha allah. waaw defaat beneen émission boo xam ne. dana daal di xalaat bu baax a baax ci dundu daara yi ndax du doy. incha allah daa jaadu de rek. daa jaadu ko woowee ma ne ko bari na sax waaye ma ne ko baax na bu ñu commencé développé di nga xam lan ngay tàggatoo. bu ñu ñu joxee ngi ñu ngi di sant ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal leen barke di wax ne li may gën a insisté waat rek mooy ñu fexee jox gëdd waqf bi mm-hmm. association ànd liggéeyal daara mm-hmm. bu ñu mën a joxe suñu numéro mën nañ ko jox 77 528 13 13 mooy sama numéro man mm-hmm. secretaire général bi képp koo xam ne bëgg nga ci am information ba mu woowee dinaa la jox information yu doy sëkk ndax liggéey bi ñuy liggéey nii dañ ko ànd ak état du Sénégal. Mhm. ndax bu ñu waxee état du Sénégal mooy autorité du waqf. Mhm. autorité du fu benn démembrement la boo xam ne état moo ko teg pour muy surveiller di contrôler jàppale ñi nga xam ne dañuy def waqf. Mhm. ndax xam ngeen ne bu njëkk ba fu bëriwutoon waaye li muy néew néew pour ñu enregistrer ko. encadrer ko ba mu mën a wéy di continuer. léegi xawoon naa jafe waaye léegi yombal nañ ko moo tax état teg na benn branche boo xam ne mooy autorité di waqfu te suñu mbokk Amar Lo euh, nekk fa mhm. ak euh, Racine Ba mhm. jiite jiite ko ak euh, docteur Aaj ñoom ñoo fa nekk ku fa ñëw te bëgg a enregistré sa fu bëgg ñu encadré la boo ñëwee danañ la encadré la teg ci yoon mhm. su ko defee itam fu boobu dafay nekk lu transparent loo xam ne luy mën a continuer lay doon moo tax waqfu ànd liggéeyal daara mi ngi woowaat nit ñi ci fu bii di bëgg nit ñëpp participer ci am nañ benn campagne bu ñuy lancé boo xam ne dañu bëgg un million de sénégalais ku nekk mille francs muy un milliard. ñu tabax un million de sénégalais ku nekk 1000 francs rek mm-hmm. loolu yomb na wallaay yomb milliard de francs CFA ñu defar benn wax buñu na may jàmm yaa oustaz may jàmm tey nag anniversaire ami la donc ami suñu ami ah mi nga xamante ne tey jii mooy anniversaire am ñu ngi koy souhaité happy birthday mm-hmm. moo xam lu mu bëgg nag yàlla na ko ko yàlla may wax dëgg fa yàlla ah, nit baax borom ceeb ya keroog ceebal na la bu baax ah, mooy borom ceeb ya ah, ami dundal loo dundal doyul di gërëm képp koo xamante ne yaa ngi woon ci régie jàppandal mbir mi moomu daal di yem Aliou Badara ak équipe am yépp macha allah ñu leen di jox dig daje ëllëg incha allah